ci jullit ñi tey dafa dokk ci bés yi nga xam ne bisi suñu boroom la subhaanahu wa taala yu màgg yi muy bés yi nga xamee ne ñi nga xam ne ñooy aj ca baytullahi alxaraam ñu nga ca seeni nusub di joxe li nga xam ne mooy seen farata yàlla subhaanahu wa taala dogal leen bés yooyu ñu war ka caa uyu ngir jaamu ka ca joxe li nga xam ne mooy màndargay diine yi masaa borom ba tëral ci bés yooyu foofa yàlla sunu borom ba subhaanahu wa taala nag sàkkal ñun ña demul lu demee noonu muy iid bi nga xamee na tey mooy iidul adha nga xam ne ñoom itam moom bés bu ñëw boobu bu ñëwee ñoom ci la ñuy rendi seen had yi ñun itam ñu jox ñu lu diiroog loolu muy iidul adha muy bésu tabaski feetu tabaski nga xam ne yàllaa ka tàggatal jullit ñi mu doon nag ah, sunna bu yàgg di sunna seydina mawlana ibrahim alayhi salaatu wa salaam ba nga xamee ne boroomam subhaanahu wa taala digaloon na mu rendi doomam ja ismail alayhi salaatu wa salaam ci xissa boo xam ne mu ngi ci alquranul karim daanaka jullit ñépp dégg ko ak li mu làmb ci li nga xam ne moo di ay waare ci diggante baay ak doom ku ci nekk di nitu yalla yàlla ku ci nekk it di jëfe ndigalal sunu borom subhanahu wa ta'ala te doo ca seet looy tànn ku ci nekk it muñ la nga xamee ne moom la la sa borom na ba am at yam am cig mage ba dem ba yalla doom yàlla sama borom subhanahu wa ta'ala ci kantanam yalla andil ko doom ci waxtu woo dem na ba doon ne dem na ba naagu doon waaye nag xam na ne kanta suñu borom weesu na foofu yërmande suñu borom weesu na foofu yàlla suma borom ba andil ko doom nga xamee ne day sax ci xolam ndax mu ngi koy door a gis dem ba doom ji dëgër sama borom ba nattoo ko ngir mu rendi doomam jooju loolu bariyaana ku ñu kan nattoo yaakaar naa ne boobu nattu ca gën ndax diis gu mu diis ca baay ba ko war a def diis gu mu diis ca doom jam war a def waaye la la ca jaaxal mooy ngëm ga baay ba àndal muñ ga baay ba àndal àndal ommatu ga baay ba àndal ngëm ga doom ji àndal muñ ga doom ji àndal wammatu ga doom ji àndal ñoom ñaar ñépp jëbbalu ci ndigalal borom bi subhaanahu wa taala ginnaaw ba yàlla wane baay ba di ibrahim alayhi salaatu wasalaam ne ko na nga rendi sa doom ndax ru'yal anbiyaa xaq ku ne xam na ne yonente yi lañuy ñuy tëdd di ko gis wax la dëgg la looloo tax doom jani ne ko yaa abati fal maa tu'mar new ko yow sama baay gisal li nga gént déedéet daf ko ne defal gisa a defal li ñu la digal moom xam na ne yonent la muy tëdd yàlla di ko ko wan digal la bu jóge si borom bi subhanahu wa ta'ala kon nag ci gàttal xissa boobu ëpp na lii ku ne xam na ni xissa bu yéeme la mën nañ caa jële lu bari ci yàlla gënal la lépp gënal la sa bopp gënal la sa ndey gënal la sa baay gënal la sa doom gënal la mbooleem di des ci mbindeef yi feeñ na foofu gaaw uyu yàlla jëbbalul yàlla feeñ na foofu sant yàlla ci la mu la wërsëgal xam ne li mu la jox ci moom la jóge ci moom lay dellu saa yi la ko laajee nga jébbal ko ko ci xol bu féex loola feeñ na ci xisa boobu kon nag bariyaana lu feeñ ci xisa boobu sacrifice ci li gën a jege sa bakkan ci li nga gën bëgg ñu laaj la ka nga sacrifier ko te yàlla tax yaakar naa ne loolu ñëpp mënu ko tiim sa doom di ko rendi metti na waaye nag ala kulli xaal lu rëy rëy la waaye ndigaleel yàlla moo ko ëpp fuuf allahu akbar la ñu wax yàllaa gën a màgg lépp moo gën a rëy lépp kon nag laay loolu ci boppam aha bésëb tey day dekkalaat sunna boobu nga xamee ne ñaari yonnante yu tedd yooyu ñoo ko séqoon rawatina bàyyi bañ ko yoonoon mooy seydina ibrahim alayhi salaatu salaam waaye nag sanga bu tedd bi alayhi salaatu wassalaam démb bi mu wootee feeñaat ci àddina saa borom ba digal ko mu dundalaat li nga xamee ne mooy sunna boobu yàlla yoonalaat ko ci moom ci alquranul karim yonal ko ko ci sunna itam ba legi ñu continuer di ko def sama borom ba jalla wa ala wax ak moom bismillahi rahim inna a'tainaka alkawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar sama borom ba jalla wa ala ci saru tedd woowu nga xamé ne dig na ko ci deg kawsar la nga xamé ne mo nek ci bir ñu bënd ka génn ci sar woowu mooy fa salli li rabbika wanhar ñu tudde ko wajhu dalil nga xam ne tey moom la ñuy génne ci biir dalil boobu ñu taxawal mooy salli li rabbi na nga jullil sa borom xanaam salaatul ayit wanhar boo jullee ba noppi na nga loj sallallahu alayhi wa sallam foofu sama borom ba digal na ko ko mu dellu ginnaaw moom sallallahu alayhi wa sallam jëfe ko doxaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من ينن صلى الله عليه وسلم تبسكي وند ci ñaari kuy waaw ñaari kuy yoo xam ne yu weex lañ waaye dañu toj ñuul maanaam ay ñuul ñuul ñu nga ca nee ne moo leen rendi ci loxal boppam nee ne itam mu ubba ko turu yàlla dal di kàbbar bismillahi allahu akbar jël tànkam ba dal di koy teg ca seen ah, ndodde maanaam ca weti xar ma xar mu ci nekk mu jël tànkam teg ka ca wet ga ca wetu baat ba maanaam ah, sifaax mooy jaanib kon li nga xamee ne mooy sunnaam sallallahu alayhi wa sallam sunna su mu jëfe la oo ci nit ñi كذلك نكون ابن عمر وحنا نيونن بي صلى الله عليه وسلم سخنا مدينه دي تبسكي فكي ات مو تغال دي كتبسكي بابا روبام جلك صلى الله عليه وسلم كون نك موم تي بوبام نونو لك دوندل نون لا ني سوغني ني دوندل ك واي ايتام ني سلال جامو غمل نون قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له waxal ne sama julli bu mu mën a doon wa nusuki ak samak rendi wa max yaay sama dundoo maati samak dee lépp lillahi rabbil alamin ñel na yàlla rabbul alamin kay borom bi defi la sharika la amul bokkaal kon lii ci bésëb tey ñu war a def bu ñu si dugal lu ci bokkul ndax day yàq yéene ji te yéene ji bu xësee yàqu sama borom ba delloonu ko ma umiru illa li yaabudu llaha muxlisina lahu ddin ba fa wax ji jeexe kon nag sellal googu nañ ko ci def te moytu lépp lu koy lëxal moytu aada yoo xamee ne yàlla suñu borom ba yoonalu ko ñu dugal ko ci bés bii ak ci sunu rendi ak yu mel noonu ginnaaw loolu sanga bu teddam bésub arafaat la taxawoon dal di wax ne i'lamu annama amwaalakum wa araadakum يعلموا أنما دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا نين بسب عرفة لا تخوان دوخ سخد بامبو ياتو نغن خمنة سيني درد سيني درد يين دلدكي نما دماءكم وأموالكم سيني ألم وأعراضكم سيني درد حرام عليكم na ngeen xam ne araam na seen diggante tuurante deret araam na seen diggante jëlante alal araam na seen diggante ci lu dul yoon tilimalante ay der araam na seen diggante ci wax ak jëf ka xurmati yawmikum haza ni mu araami ci seen bésab tey bii muy bésab arafa fii sahrikum haza ci seen weeru tey wii nee na itam fii baladikum haza si seen dëkk bii noonu lay araami ci yéen ba yowmal xiyaama looloo tax dañu war a ñoŋal sunuy deret ñoŋal sunuy alal maanaam sunuy bakken sunuy alal sunu xel sunuy der sunuy askan loolu lépp lislaam dafa ñëw ngir aar ko ñu tudde ak daruriyaatul xams mu doon ñu ko fàttali bi ñu fi jógee nag doon nañu waxtaane ci lu jëm ci wàllu der ngir néeg yi daanaka yàqu na jalgati gi bari na tappalekat yi bari nañ kàccoor yi bari nañ saay-saay yi bari nañ nit ñi tàggoo nañ seen sago tàggoog seen ngëm ñu ngi dugg ci néeg sëy yi di yàq yàq mu réerée réeré lu bari wax nañ ko fii jàppanaane ci korite bi amaana bu waxtu bu mayee ñu di si delluwaat ndax bésab tey dafa dafa xat waaye nag am na leneen loo xamee ne laxasu na ci bunte boobu ci tappalekat yi nga xamee ne ñu ngi ci biir néeg sëy jàmbur di yàq sanga sanga bu tedd bi sallallahu alayhi wa waxoon na ca téeréem ba de wal maratu tusalu an bayti zawjiha wa firaasiha du lan lañ waxoon dañu koy laaj ci néeg jëkkëram ak lal jëkkër na ko ott na ko aar na aar boppam aar néeg ba aar lal ba aar alal ja ba nga xamee ne day ñoŋ du may benn kàccoor muy tegab tànkam ca bunt ba waxuma laa nag muy toog sab lalam kon nag bokk na ci li nga xamee ne mbokki jullit yi lënt na tey ñu di ko def mu bari lool ci sunu biir la ca tëj boppa jaaxal la mooy ñiy faral di may lan moo tax du ñu koy gëstu lan moo tax du ñu koy lijjanti mooy gaañi bariyaana tey jigéen bi ñuy ñëw di ko takk mu nekk ci biir iddam subhanallah mbokki jullit bi idda yàlla moo ko dogal ñu war ko koo jaamoo dafa bokk minal umuri taabudiya ngir ñoŋal li nga xamee ne mooy àqu borom kër gi ngir ñoŋal la desoon ca sëy ba desit ya ngirit ñu xam ndax biiru ndaw si mucc na walla déet ngir ñu moytu itam li nga xamee ne mooy jaxasooy askan yi ñu war ko ko jaamoo comme ni ñu koy jaamoo ci julli comme ni ñu koy jaamoo ci koor comme ni ñu koy jaamoo ci yeneen mbir yi yàlla sama boroom mi dogal sëy moo dogal te xala ko teqala ko nag dina am ci ñaari anam dina am ci waa ji faatu dina amit ci pase waaye dina amit ci ñu tas sëy bi muy fas waaye lu mu ci mën a doon nga xamee ne sëy la boo xam ne idda war na ca bu boobaa bu ca yàlla dogalee idda donte idda yi uute nañu bokkuñ ñii ay weer lañuy ñuy jàpp idda ñii ay laab lañuy ñuy jàpp idda kon idda yooyu yépp yàllaa ko moom moo ko wàccee ñi nga xam ne ñooy tappale di dugg ci néeg sëy jàngul wala jigéen ñiy tappale nga xam ne dinañu gis góor goo xam ne yaakaare nañu ko alal wala boog borom diine la wala boog boroomu askan la wala lu mu mën a doon ñu dal di ubbi buntëb jalgati bunta boobu dal di jalgati li nga xam ne mooy idda te xam ngeen ne idda saa borom ba da ko mbokki jullit ñi lu mu la looloo tax bu fekkee ni waa ji fase na soxnaam sama borom ba nee na bu ñu leen génne fa ñu war a jàpp idda bu ñu génne te lu ñu bu ñu leen génne nañu toog ba idda ba mat kon loola dalay wan na daf la bëgg a jàngal ne la loolu dañ ko war a aar dañ ko war a ñoŋal sama borom ba subhanahu wa waaw kon loolu tey jii ci sunu biir sunu société ku ne xam na ne mu ngi toj lu bare ngi fi loo xamee ne duñu ko wax si biti ah waxkat yi duñ ko wax waaraatekat yi duñ ko wax waaye ñu ngi gis ay doom aadama di dog iddab jàmbur di takk jigéen ci biir iddam te loolu dafa bokk min kabaa'iri zunub a mag ci bàkkaar yi ci la bokk nañu ko xamee noonu donte ñun toppatoowuñu ko sëykat yi sax jéemu ñoo xam lan mooy idda te ku jigéen ki koy jàpp war na koo xam kilifa am gi koy denc war na ko xam jigéen yi bu ñu xoolee si seen idda mën nañ leen a tàggale séddale leen ñett jigéen joo xamee ne mën nañoo ñëw labat leen labat leen leeralal leen labat gi maanaam dama la bëgg a takk mu leer wala boog nga gaaralal leen labat googu maanaam man kat temps yi damay ut soxna bu dee soxna si jàng arab nga ne dama bëgg soxna si jàng arab loolu moo di gaaral loolu nag dagan na ca sunu boroom bu fekkee ne ku jigéen ki ak nekkul ci buum ak jàmbur bu fekkee ne ku jigéen ki nekkul ci idda ñaar yooyu dañ ko ciy tënk maanaam dina dagan ndéem ku jigéen ki bokkul ci ñi yàlla tere nga tëkkaleen man ngaa ñëw nga labat ko ci leeral wala ci gaaral ndéem nekkul ci buum ak jàmbur na leer ndéem nekkul ci iddab jàmbur na leer am ci jigéen ñoo xamee ne mën nañu leen dagan na nga gaaralal leen ah, li nga xamee ne moo labat gaaral waaye araam na nga ak labat ndax mbooleem jigen ñi ci ni ñuy jàppe idda jigéen aramal, la yàlla araamal nga fekk leen ci seen biin idda di leen wax waxi sëy te loolu du dara ci ñun mu leer nañ ah dinaa yónnee samay kilifa ñu ñaan labat gu leer la waaw alxitba sariha moo di labat gu leer nañ nga wax ka muy wax bu leer bi ci des nag taarif la tudd mooy nga gaaral ka comme jigéen joo dafa alquran nekk ci idam nga ñëw nekk ah ma day taa yëpp damay wër soxna su jàng alquran ndax mu dima jàngal dima dalal waaw mën nañ caa dégg ne da nga ko bëgg labat waaye mën nañ leneen ci benn mbir la dagan wala boog ñaar mooy ki nga xamee ne jëkkëram génn na àddina waaw jëkkëram génn na àddina kooku sama borom ci alquran yaxal na ne ah may naa leen ngeen gaaralal leen ak labat wala junaha alaykum فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله annakum ستذكرونهن walakin la تواعدوهن sirran إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه كن يلا نين بكار ورولي بوغين فكي جيجين جو خامني جيكرم دا فاتو نا لير جيكرم دا فا فاتو مانام عدت الوفاء نين نيو غارلال كسين لبات مانام من ماي ديو دومي ديو ولا تعيب ما جي ور سخنا ولا تعيب ما جي ور سخنا سي جانغ القران ولا يمل نون لولو موي غارال مو ني دغان نا ولا باي ما خيل بو فكه ني ادبي جيخنا يويو اك يو ديمي كي نونو مودي غارال سام بروم با دغانال نك واي نك ها مولين كين ديك سكر ولا توا ايدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ما نام بو سكر بوب موي واخ mooy leeralal ka ka dinaa yónni samay kilifa ñu jël si la ñu ñaan si la nee ne loolu bu leen ko déeyoo ak ñoom lu dul ngeen wax wax ju jaadu mooy gaaral boobu may naa leen ko mu ne nag wala taazimu uqdata nikaaxi xata yabluxa alkitaab ajala nee nag bu leen dogu mukk moytu leen bàkkaar bu mag la mbugal mu rëy mu ngi leen ci xaar ngeen dogu fas sëy ba te idda ba jeexul xata yabluxa alkitaab ajala ñeenti weer fukki fan na jeex ñetti weer na jeex ñetti laab na jeex bu dee ëmbale na wasin bu kenn dogu li nga xamee ne maye la ci biir idda loolu moytu leen ka wala taasimu uqdata nikaax xataa yabluga alkitaabu ajala yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bu xon ne rufaya ne ka umkusi fii baytiki xataa yabluga alkitaabu ajala ba jëkkëram faatoo mu wax ko ka mun ko toogal ci sa néeg ba sa idda jeex takk ñuy door a wax yi di la maye kon nag nañu bàyyi xel loolu léegi nag bu fekkee saay-saay bi wala boog bu fekkee ne moo ko tey ñu mën kaa tudde noonu jalgati na comme ni ko tappalekat yi di def tey dugg ci biir idda daldi di labat ci biir idda daldi di fasab sëy ci biir idda daldi jël ndaw si wéet moom ci biir idda ñetti musiba daje ci bir indi légui lan la ci diine ji wax han mahal ittifaq amna mahal ikhtilaf amna am borom xam-xam yi ijma la ñom ñépp daje nañ ci ne sëy bobu dañu koy tass ci saasa buñu ko xamé sa saasa nañ ko tass ci saasa buñ xamé waxtu wuñ ko mëna xamé donte ginnaaw fukki dañ koy tass ca taxaway bi sëy bobu dañ koy tas amul oute sëy bobu araam na ba yowmal xiyaam amul oute ne sëy bobu araam na waaye boroom xam-xam yi amana ba fañu ñu juuyoo mooy fan moy ndax ñaar ñooñu nga xamé ne maye nañ leen ci biir idda ndax bu idda ba jeexee buñ leen maye jébbale ndaw si idda ba jeex ndax man nañu tambali wat sëy bi ginnaw bañu ñu ha fofu la uju yo gane lii xew fii ci sunu saw jant bi di njuróom imam Malik moom la mu wax amaana bu mu laay gën a wax fii mooy ne ñoom day dañu wax ne jigéen ji nga xame ne fekk nga ci biir iddam labat ko ci biir iddam waxu doyul nga takk ko ci biir addam doyul nga wéet ak moom wéetaayu ñaari way dencante maanaam jaxasoog moom cib lal doyul ñett yooyu képp ku ko def ci sa biir idda nee na sëy boobu dañu koy tas benn waaye seen diggante même bu idda ba jeexee araam na ba yowmal qiyaama araam na ba yowmal qiyaama mënatu leen a ànd yéen ñaar ñooñu mu amalatan lahu bi naqiidi qasdi ñu jëflanteeg moom ci lu uuteeg li mu bëggoon man istaajala shay'an qabla awaani muuqiba bi xirmaanihi képp koo xam ne yàkkamti nga mbir te waxtoom jotul lañu ñu lay jëkk mbugale mooy ñu xañ la loola mu ngi mel ni ki nga xam ne dafa rey ki mu war a doon ki war a doon ki mu war a doon na nee na kat dama lay may kër sàngam ca almadi walla fële mu dal di yàkkamti dal di koy rey ngir doon na kër googu ñu xañ ko kër googu laa yarisul qaatil yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na ku rey doo doon na kon nag lu tax mu muamalatan lahu bi naqidi qasdi aha kon ci rey ci tayeef kooku moom mënul doon ci rey ci njuumte kooku moom aha du doon na ca déye ja joxe waaye mën naa doon na ca alal ja kon nag lii ñoom itam lool la ñu yaxal nee nañu seen diggante araam na ba yowmal qiyaama ña sa des wax nañu leneen kon bu fekkee ne labat na ko ci biir iddam moo xam idday faatu la moo xam idday weer la moo xam idday laap la lu mu ci mën a doon ndax idday weer it idday ku faatu mu ngi ci biir iddi weer moo xam iddab ëmb la bés boo ko ci labatee takk ko ci ñu jébbal la ko ci dañuy tas sëy ba ba noppi seen diggante ñu araamal ko ba yowmal qiyaam loolu mooy gërëm imam malik ak riwaayaan ahmad waqalu shafii qadima kon loolu boo demee ci téere boobu nga xam ne moom la ñu ooy al muxaddima al azziya bind baa nga fa ñu di ko jàngale ci daara yi mu ngi ci yeneen téere wala yajuuzu nikaaxu fi l iddati sawaun kanat iddata wafatin aw talaaq mu ne wa yataabadu tahrimu fiihi bil wati fi l iddati aw baadaha wa yaxrumu tasriixu bil xitbati nee ne daganul benn yoon ci jullit bi muy takka jigéen ci biir iddam nee na loolu araam na nee na yete abadu tahrim nee na araame googu day deppetoo di continuer nag aha bil wat i fil idda nee ñu jébbal la ndaw si bu ñu la ko xësee jébbal ci pas-pas boobu ñu kafasoon pas-pas bu yàqu boobu nee araama gi day continuer seen diggante nee moo xam ci biir idda bi la wala ci ginnaaw idda bi mën nañ la ko may mën nga ko labat ñu may la waaye nga xaar ba idda ba jeex nga di ko doore jël ñun la dee benn la bu fekkee ne sëy ba dindiwuñu ko même boo xaaree ba idda ba jeexit benn rekk la ndax dindiwuñu woon sëy boobu te sëy ba newu fa sëy nag bu fa newul ah benn atte mënu cee toftaloo kon nag benn la nit ki bu fekkee ne labat na ci idda takka ci idda ñu jébbal ko ci idda moo xam jébbal nañ ko ci biir idda moo xam ginnaaw idda ba bu boobaa loola dañu koy araamal ba yowmal qiyaam seen diggante ñoom nag seen cëslaay fa mu mooy Seydina Omar radiyallahu anhu ah, dafa am ndaw suñu wax Tulayha al Asadiya moom la joxoon ki nga xam ne mooy حسين آه، الثقفي واو كون كوكو دنج كا كاماي سي بير ادم باك عمر ييغي دا فا تاس ديغنتي بوبو با نوبي دور ndaw سي ايار دور كو غور كي ايار بيمو دافي لول نك لا واخني اي امراه نكحت في عدتها فان كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما summa kaana al aaxaru xaatiban min al xutaab wet bu jëkk gaaw ba mu leen dóoree ñoom ñaar dafa taxaw wax jullit ñi ne bépp jigéen joo xamee ne maye nañu la ci sa biirab sëy nee ne sa jëkkër ju bees yooyu ñu la may bu fekkee ne jotuñ la kaa jëppal maanaam jotuñoo wéet ak moom jotul wéet ak moom wéetaayu sëy Omar nee ne furriqa baynahuma nañu taggale seen diggante ñoom ñaar nañu tas sëy boobu benn ñaarel bi bu fekkee ne tas ñu sëy bi comme moom waa ji jotul tëdd am ndaw si mu ne bu boobaa nag bu idda ba jeexee na bokk ci ñuy labat bu ko neexee gënu cee yey kenn waaw ñaareel bi nag mooy bii ñuy wax nii mu ne wa in kaana al axaru daxala biha mu ne furriqa baynahuma waaw bu jëkk bi dafa ne furriqa baynahuma summa ictaddat baqiyata iddatiha min al awal summa kaanal al aaxaru xaatiban min al xutaab maanaam bu ñu mayee jigéen te jébbalewuñu ko ci biir iddam ñetti jéego la nañu leen tàggale maanaam nañu tas sëy ba ndaw si na mottali li desoon ci iddam jëkkër ji jëkkër ji ñaari weer la am dal di tappale ñu maye ka xam nga dese na wenn weer bu fekkee ne ñetti weer la waroon a jàppa idda ñaari laab la am di tappale ñu maye ka dese woon na benn laab dafa ëmboon di ko làq woon ci dëggul kon loolu nee ne na mottali li desoon ci iddaam ñetteel bi nag waa ju bees ji daldi bokk ci labatkat yi bu ko neexee kaña ñu ne bu fekkee ne jébbal ñu ñaareelu pàcc bi nag mu ne wa in kaana al axaru daxala biha ñaata moo ci war ñeenti mbir mu ne furriqa baynahuma nañu tàggale seen diggante nañ tas sëy boobu ثم ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ñaareel bi mooy na mottali iddaam ci jëkkëram ju jëkkëj comme ñaari weer la amoon dal di koy bàyyi na dem iddawaat benn weer comme ñaari laab la woon na dem dolli si benn ak laab kon nag na mottali iddaam comme dafa mboon na dem ba wasin waaw ndax ëmb sax ku ne xam na ne araam na ci lislaam ñu di si takk jigéen sang bu tedd ba sallallahu alayhi wasallam neene la tu laa hamil hatta tada neene ko umba ken du tëdd ak yow feek imbiwoo xanaa sa jëkkër waaye keneen déedéet mu ne man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fala yasqiyanna maahu zara xayrihi neene kep gum yàlla ak bés pencema bul nandal sam dox bu ko nandal ci to mayam jambu moy bul fek jigen jo xamne dafa yor ëpp ëmb moo xam sib sëy la ko jële moo xam ci leneen la ko jële mu ne bul dem di tëdd ak moom bu dee njaaloo ki njaaloo ak ki njaaloowul moo ci am bu dee sëy ki kiy sëy boroom bi moom mën na loolu waaye guddul kene bu dee beneen beneen waay boo xam ne ñëw na tagga manu manu loolu waaw njaaloo moom ñuy dégg ñu naan dafa war di jege ki ka ki ka ka defoon ba mu wésin musiba la loolu du waxi dara seytaane moo leen di gëm loo loolu di ko askane ci xam-xam loolu du xam-xam loolu du xam-xam kon nag Seydina Omar nee na bu fekkee ne waa ji jébbal nañ ko maanaam jëkkër ju bees ji jébbal nañ ko ndaw si si biir iddaam nee na furiqa baynahuma nañ leen tàggale ñoom ñaar ñaareel bi mooy summa taddat baqiyata iddatiha min al awal ndaw si na mottali li desoon si jëkkëram ah idda jëkkëram bi ko jëkkoon a takk te texala ko am moo xam dafa faatu moo xam de na mottali idda booba ñetteel bi comme waa ji jaxasoo na ak moom summa taddat min al bu paree ci ku jëkk gi léegi na jàppal idda ku mujj kii kooku nag moom lañ tudde istibra mooy day làpplu moo idda ñoo niroo waaye ndox mu yàqu la moo tax kazalika naka noonu fa mu mujje nag mooy summa laa yajtamiaani abada mu ne ginnaaw jéego yooyu yépp bu ngeen leen tàggalee tas sëy ba ndaw si mottali li desoon si iddaam si jëkkër ju jëkkër ja mottali idam si jëkkër si ñaar ñak jëkkër ju mujj ji ndax tëdd ba aha mune ne summa laa yajtamiaani abada ginnaaw loolu ñoom ñaar mënatuñoo sëy abadan li des ci seen dund kon nag loolu atte la boo xamee ne atte bu diis la atte l'islam la itam ndax ci moom moomu la jóge donte am na ci leneen ci borom xam-xam ñu wax lu uuteeg loolu waaye ngir artu ci suñu artu ci nit ñi ñu moytu di dugg sey di jalgati di toggoo ay bagar yu màgge nonu ndax bi passé itam deggon ngeen ah laysa minna man khabba mamra'atan ala zawjiha aw abdan ala sayyidi bokul ci ñun kep ko xamne dugg nga ci nek sey jàmbur di yàqa digeunte bobu digeunte jeuker ak jabaram di wor di yàq digeunte bobu ngir man la labat ndaw sa ngir man ko tak yal nanu yàlla jubal yal nanu yàlla tek ci siratal mustaqim musal ni ci jalgati musal suñu jur njaaj musal ni ci tapale ndax bakkar yu bari kat mbokki jullit ñi ci foofu lay jóge rawatina nag jabari jàmbur ndax dégg ngeen wal muxsanaatu mina nisa ñi nga xamee ne ñoo nekk ci buumak ak sëy yàlla araamal na kenn kuy wax ñoom lu bokk ci sey feek ñu ngi ci buum googu waa min al muharramat tahriman mu mu mu aqatan ah day bokk si ñu yàlla araamal utal ko ak kon nag yal na nu yàlla defal jàmm yal na nu yàlla tënk ci ay ndigalam musal nu ci ay tereem ñu xoolaat néeg yi mayekat yi mayekat yi ci Sénégal yàkkamti nañu ni ñuy mayee ñu ci bari du noonu maye boo xam ne léeg-léeg doo xam ci ki ngay maye dara seede soo xam ne doo xam ci ki ngay seede dara bu ngeen dajoon ci mbedd mënoo xaa xam kon yooyu mooy indi yu mel nii surtout jigéen ju sëy ba noppi bala nga kaa mayee nag a teey jigéen ju sëyagul sax noonu kon nag nañu ñoŋal néegi sëy yi tey jikko yu ñaaw yi ñuy gis si baree bari yàlla moo xam waaye néegi sëy léeg-léeg bu fa jalgati gi am ci néegi sëy yi léeg-léeg waxuma toujours de waaye léeg-léeg mu ngi rax ci jikko yu ñaaw yi yàlla na nu yàlla teg ci siraatal mustaqim yàlla na nu yàlla nangul yàlla na yàlla sama borom ba teggil nu tiis wii ñu nekk muy mbas mi nga xam ne tey mu ngi waat yàlla mën na koo delloo yàlla na ko yàlla dellool jëleel ñu ko fi si jàmm ñu bañ di ko ŋàññe ma fàttalikuwaat ñu bañ di ŋàññe mbas mi li nga toog di ko ŋàññe ñaanal yàlla jële ko fi nga am ci aw yiw ah hatta bu ko yàlla nangoon ñun ñëpp ñu jariñoo ko yàlla sunu borom ba subhanahu wa taala bàyyi nu fi sunu xalif Seydi Abdallah njaboot ak Seydina Aliou am ak xalifa yi lislaam bi yëpp yàlla nanu yàlla defal jàmm rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya rabbi allah ya hayy ya qayyum ya badi'u samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram hurmati la ilaha illa allah muhammadur rasulullah